acaya maayeku mbooyooyu waaw waa Chain de production la quoi waaw ñu ngi leen di baalu àq ci tabaski bi ñuy romb nag ñaan yàlla nangul suñu jaamu yàlla musal ñu deewu bereel deewu suba deewu ngoon yoor yoor njoloor ak bëccëg ak tàkkusaan may ñu angaaru jabar toolu doom ak quartier sëg ñépp ñu fekk ko waaw may ñu digg demoon taabu car masha allah waaw kii nag dëkk la woon mm. dëkk bi dafa am buur buur bi dafa reew ba kenn xamul buur daali buur daali dafa reew xam nga waa ji xoolal amul civilisation amul dara. ko fekk mu ngi sax mi góoram bu kii boobu. xam nga wala mu yee ay pitikola laisse tomber ak jabaru mi bëri. mu nekk mbalax rek. mbalax justement léegi paa bi nii. Mm-hmm. mais paa bi pourtant sax gëriwul problème dafa réew mais réewan dem dafa mu ko yóbbu quoi. Mm-hmm. paa bi maanaam bu dëkk bi amee gan. Mm-hmm. bu gaa yi julee timis timis ba pare. paa bi day teg seesam. benn pliant géwel yi dar ko njaboot yi wër ko ngeen di saagante moom moom concours saaga daal moo ko neex. xam nga bëggoon naa ko yóbbu sax ci paaw kii bi mooy paa bi ñaanaalaate pour ñu gaay baay gaay bàyyi sax voilà voilà sëriñ bi ci dëkk ba la dëkkoon mais sëriñ ba léegi dafa toxu sax ndax tiit léegi dëkk ba am benn gan benn gan pël mais paa bi xam nga pël yi ni ñu bëree kersa ñëw gane ci dëkk bi mm-hmm. ñëw suba ci gaa yi génne ay ndël fëgg kërëb kërëb xam nga mm-hmm. togg añ yeeg xam géwél yi génn gaa yi génne gani laay xam nga meeri cuubu xam nga mm-hmm. ojo bojo yi génn maquillage su pastelu xam nga gëli dem jam seen siiñ yi xam nga ojo bojo yi ñëpp xam nga ñëpp a bëgg ñëpp a happy mm-hmm. mbay yi ñëw unku paccal yi ñëpp a génn mm-hmm. léegi ba tuisment bi mm-hmm. maasee nii nii rek xam nga léegi buur bi génn ñu tegal ko pliant bi léegi nëppal bi dëkk bi dañ am cosaan bu ñu amee gan dañ koy taral dañ koy may soxna soxna si nag sama doom lañ koy may mais pour nga mën a jël si doom ji pour nga mën a am soxna foog nga gañe ci concours saaga lu ne ko man de suma cosaan to ɗo gummimi cosaan amen fin eh. cosaan fu mu nekk eh. ñun kamuñ saagante ñun ka kamuñ saaga bu nara metti ñu génnee jaasi bon gars yi ne garaaw mm. pël bi ne ko buur bi ne ko sa alpha di nga saaga gars ne prip gars joxe coup d'envoi mm. buur bi commencé waaye damay toj sa nangam waay yow sa kaala bu dë waaye mm. tey waaye tey damay ubbi sa waaye commencé xam nga uh-huh. damay toj sa damay ñàpp sa sëñ bi damay leen sa. maa ngi dëbb sa. maa ngi raxas sa. maa ngi laab sa. maa ngi gongo sa. booy gars yi ne ci timis timis ba vingt trois heures cinquante cinq trente sept secondes mooy buur bi di saaga affaire bi des presque ay trois minutes yooyu pour mu pour match bi jeex pël bi xam nga muntu ko gérer quoi mu ne ko buur pare nga mu ne ko waaw mu ne ko pare nga mu ne ko waaw mu damay jël sa tànk ndey joor yaay ma waaxu ba pot ba pow ba pow ba pow get ndar euh. ma takk ko foofu ma jël sa tànk càmm sa sa sa tànk yaay ma waaxu ba pont bu ma takk foofu. ko de sëñ bi. si mais ay buum yu dëgg la ci def nag. nee na ma déparé ko Mali. Mm-hmm. sama gëttu maam. Mm-hmm. samay nagu bàjjan. Mm-hmm. samay nagu umpaañ. suñu nagu buur ba. garab yi nekk ci yoon wa. <laughs> bâtiment ya <laughs> suuf si. car rapide yi <laughs> ba buub di ñëw nee ko buur maa ngi ñëw de buub ko ñëwal mu ne ko buur maa ngi jege si de mu ne ko yegg si rek mu ne ko buur ma ñëw ba ci ba ci sa buntu awra yaay ba fëgg ma ubbi bunt bi dugg buur bi ne ko booy dugg may dëgg sa <laughs>